jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jaajëf l'homme passe partout auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu RFM 94 point 0 jërë ngeen jëf Adja Assou lu wànqi dox noor maa ngi lay ziar bu baax yow tamit ah di euh, ziar partenaires yi nga xam ñoom la ñuy àndal ci xalaas gi waaye di ziar Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm. Euh, di ziar euh, Ndiaye bu baax a baax di ziar auditeurs yi déglu yëpp ak ñuy dégloogul mais ñaan rek yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ñuy déglu ñëpp yàlla nañu am jàmm ñuy dégluwul yàlla nañu am jàmm. Hmm? waaw sunu euh, mbokk ya nekk bitim réew yàlla na leen yàlla defal jàmm. Hmm, surtout ña ne itali yàlla na leen yàlla defal jàmm. Hmm. ña nekk Chine yàlla na leen yàlla defal jàmm. fu Sénégalais mënti nekk ci àdduna bi yàlla na ko yàlla defal jàmm. ñun ñii baan ñii. waaw ak ñun ñi ñëpp ni yàlla na def jàmm. feebar bi ñuy dégg. muy muy ruumanaat ak coow. yal na ci yàlla musal bépp doomu aadama rawatina sénégalais yi. Hmm. surtout sénégalais yi ne Italie ak Europe ak fépp. yàlla na ni yàlla def jàmm ñaan tamit euh, gars yi ñuy xool bu baax ni ñuy ni ñuy communiquer ci ci ci ci ci feebar bi nañ ko xool parce que daal euh, lu doy waar la. nañ ko communiquer comme nan. ni ñu ciy waxee rek xam nga rek xam nga suñu doomu sénégalais yi dañoo ne bitim réew. am na ñoo ñoo xam ne dañ koy waxee maa ngi gis euh, si des fois ci internet bi niñ ciy waxee euh, daal day mën naa tiital doomi euh, réew yi nekk fii ndaxte ñëpp ñi koo fi gis rek am na ay mbokk bitim réew waaw waaw waaw waaw ñuy ñaan rek ñu ñu xool ñu ñu bàyyi ci xel rek waaw bàyyi ci xel njaay nga waa ngaabu ñu ñaan waa piir ñaan waa tuubaa ñaan waa Tivaouane ñaan paa yi nañ génnee kursi ñaan musiba bii sunu borom saafara ko nu mu gën a gaawee ndax ay du yam ci bopp borom. dëgg la de. njaay waaw. waxoon naa leen ko ba muy doog a jóg mën nañ ko ñaan waa Chine am ci ndam réglé ko sinon rek du baax waaw. Ndiaye maa maa ngi delloo ziar baax Aba. waaw mu ngi dox. Mhm. Hmm? ba ndey wax na lu am solo moom. waaw ah loolu la. Ah, diine yëpp ñaan ci. ay ay mun tawee su bàyyi dee na. waaw euh, waaw day baax nag ñuy informer. Mhm. Ah, parce que xam nga bu mbir amee. nga jógi ci chiffre officiel jógi ci info bu officiel c'est vrai que du lépp la ñuy wax wala du lépp mm. nañ lañ koy waxee waaw waaw waaw ay da ciy baax parce que li tax yow mii ngay ñaan bay ñaan loo ñeneen ñi mooy da ngaa buñ ci waxuloon doo ko yëg man kay li ma bëgg ñu wax ko mooy <laughs> ministère éducation nationale la ñu war a wax waaw waaw ci defu communiqué ne bu élèves yi jàngi ndax poussière bii ma gis mm-hmm. bu ñu bàyyee élèves yi ñu dem jàngi mm. boo moytul dana jur leneen. daa yokk. ah réserve bi xoolal. man def mi ngi doon wàññeeku. mosul wàññeekuwul de. te nag dégg naa service météo ñu ne. Ah. mën naa dem ba alxemes. poussière bi boo téyee sa doom kër a sa kër. Hmm. moromam yi raw ko. Hmm. nga bàyyi ko mu dem. Hmm. am na ci ay école yoo xamante ne ji waxuma la sax fenêtre yu baax waaye. dañoo muti buntu. mais nga bàyyi ko mu dem mu ngi ci. voilà xale yi. bari na ñoo xam ne ñii dañoo asthme. Mhm. ñii sinusite. Mhm. ñii sinusite. Mhm. ak yeneen ak yeneen donc ñoom ñoo waroon a jël les devants wax bu ñu apprécier situation bu dee mën na nekk. ñu ne élèves yi xale yi surtout. bu ñu jàngi parce que bu dee ci école tubaab yi. noonu lañ koy defee. ñaari fan day moom mënta wàññi xale yi dara ndax may nañ leen fi ay fukki fan ak juróom yu bari. Mm-hmm. mais am na loo xam sax far dafay far yokk. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ah pousseur bi de jël matuwaay yi. dëgg la de. am na ñu jël responsabilité tey seeni doom seen i kër. Mm-hmm. mais mën na doon conséquence ci xale. parce que luy moromam jàng du ko jàng. dëgg la bu euh, léegi nag bu ñëpp toogee ñëpp yamandoo. mais loolu moom ñoom ñoo ko waroon a lijjanti. doy na waar de joxaat ma ko baan dafa tëju. am na solo am na solo baan day li ngay awanteeg moom moom Njaay mi. waaye jàmm waaye bu ko liir de. ay ca foo bëgg ñu tàmbalee fa baan. Njaay baan fan taxee woon démb la ñuy tàmbalee rek. ndaw soosu ak famille bi. ndaw seeg famille bi doy na waar lool lool lool lool lool lool lool lool lool lool lool. ndaw soosu nga xam ne moom la ñu waxoon demal seeti sa moom la yaay ji waxoon demal sa baay ah. Mm-hmm. mujj na nag dem seeti papaam mbax gis papa ji mais dañ ko waxoon ni ko sa papa dafa dee. Mm-hmm. waaye gis na papa ji. waaye ba mu mm-hmm. gisee papa ji papa ji dañ ko may dañ ma waxoon dangaa ngaa dee. ëppatal <laughs> déglu. parce que man nee naa lii c'est pas normal sama xol bi day tàng ma mel ni comme lañ may def dara te yàlla xam ne defuñu ma dara wala kon xëy subiru viol yi ma am la sama àdduna ak tamit mooy sama papa bu ma nangu reconnaître parce que même man mii di def naa sama ay démarche 2005 laa pare woon jàng centre benn centre de formation ba ma paree jàng ma def samay investigation wër ko wër ko wër ko wër ko ba gis ko fekk si koñ bi foofu ñi fa nekkoon ñëpp ñoom dañ ko xam ay sama am auto la yoroon ci marché bi yooyu yëpp ma jël yooyu yëpp jenc en 2005 laa ko wër ba gis ko Pikine bii la dëkk ba ma wëree ba gis ko ma ne ko diw de moo ma yónni mais ma moom toog nañu des années des années di passe plus de trois ans quatre ans nangu wu ma présenté waa këram ne man doomam laa heure bu ma jug dem ci moom seeti ko ba benn jour jabar ji da ko doon xukkatal ne ko ndax kii sa gel la wala da ngeen am loo leen sekk man nag ma demoon na ba maar léegi ci loolu ma ne comme kii mënul jël ay responsabilité man mi ko wër ba gis ko ne ko man maay doomu diw nee na yow yaay sama moom mu toog dëggal ko ne ma man dañ ma waxoon ne yow dee nga ba nga juddoo sama yaay it mooy ci euh, euh, tribunal ba bu caaroy ba moom lan la fa waxoon ne sama papa dee na man nag xaw ma kan moo ci wax dëgg xaw ma ko mais jéem naa recoller le morceau mais rien à faire moom jéemuloo def benn effort ba un jour ci nga ne la màkk yi man maa dem ma ba mu fekk période boobu maa ngi woon Sénégal ma jël sama initiative ne tey moom damay wax tey dëkk bi dëgg bi soit ñoom ñu merem wala ñoo xam ndax may ma xam fi may féete ma juge fa euh, dem Pikine fekk ko fa période màkk la ñu ne ma magu jëkk euh, magu papam xaw ma moo juge màkk mboq la daal ci moom ma ne leen kon léegi ndax mën naa am numéro waa Sébikotane ñu jox ma numéro jabaram ma woo ko ci ma ne ko man la am ñibbisi naa dama fa bëggoon a ñëw teetal ma fa mu teetal ma fa ba mu raccroché téléphone ba jabar ji ne ko nag lii bëgg na ëpp parce que nii bëgg naa xam sa lan la ma jël sama oto dem ba fi ma wax teetal beeg yooyu yëpp ma dem ba foofu noonu fekk famille bi genn wàll gi ñibbi nañ mu dugal ma néew ku jóge maak moom mu expliqué ko ni histoire bi demee fi ma toog sama rango yeegi tuur te xaw ma sax ma koy tuur léegi après kooku noonu moom yor na ñaari jabar xaw ma ñetti jabar paa boobu mu ne ko kon demal nga wool ma taaw boobu mooy aaw bi ba mu ko woowee kooku noonu ci boppam dem toog ak jigéen ñi expliqué leen ne leen kii de doomu diwul doomu Amadou erreur jotoon na am lii wak lii wax lii lii bi aka yéer na ma wax dëgg yàlla aka yéer na ma ay femme famille bii it ba ma ñëwee toog si ñoom ñoom ñëpp ku nekk di wax àdduna nii la lii dara nekku ci ku nekk di wax wax wax wax wax ba pare si laa ñu ne ma léegi nag dama nga jëli say bagage nga ñëw nga toog fii ma ne leen noonu mënu ma fi ñëw toog xam nga rek sooy doog a xam tamit nit mais su ma ñëwatee naa fi ñëw incha allah ba ma ñibbee quelque jours laa ca teg sama beneen rakk bu góor tamit moom it di ma wër ne moom it yëgu ko sama papa ba tey toogul ak moom wax ko ko moom it mu wër ma ba gis ma ma toog moom waxtaan ak moom mais dama jékki-jékki arrêté contact yëpp man ci boppam maa ko arrêté ñoom ñëpp laa bloqué parce que sama xol moom moom mayool parce que paa bi jéemu la def benn effort jéemu la def benn effort dafa toog si mu toog man maay def démarche yi maay def lépp ba ni ma nekkee woon Sénégal da doon feebar ma yëkkati sama xaalis di def ci moom ne demal ordonnance soo amee ordonnance nee ma demal nga faju ji yàlla baax na lii analyse bi demal nga def ji ko sama xaalis man mais après dama toog ba ne lii man xaw ma man nu muy niroo sama xel bi jaxasoo il faut ma mën a giif wala parce que fu ma toog sama xol day tàng góor dafay ñëw fii nii sax pour labat ma mais man maa ko dul may kanam googu xaw ma lan la ndax viol yi ma def la amour papa bi sama xel daal jaxasoo na même sama jëkkoro yaay bi da doon jël ay cigarette di ko doon fay sama biir bi fu mu ne nii nii sama biir bi nii wala la plupart bi am na ay cicatrices jël naa léegi nii ay photo aussi dinaa ndaw si li mu dund lépp dafa dafa dafa. li mu mujjee la la comprendre. mu ne dem na ba set papa ji. waaw ba gis ko ba papa ji présenté ko. mbokk non loolu comprendre na yëpp. li mu wax ne jëkkëru yaayam da doon jël ay cigarette di ko fay. xam nga démb neena na jëkkëru yaay ji da ko daan sàkku. waaw benn cousin am. Mhm. nee na jëkkër yaay ji da fay sax ay cigarette ci biir bi wala yónnee na yónnee na photo yeeg yëpp nga gis biir bi ñu mu amee ay cicatrices maanaam dañ ko doon torturer ci biir kër yaayam. maanaam li mu dund pendant vingt ans moom lay nettali nii. Mhm. léegi dafa dem ba nga xam ne situation fi mu nii changé na. Mhm. léegi yaayam ak famille yaay yi dañ koy exiger mu leen di toppatoo. fay location fay courant fay ndox maanaam yor leen daal puisque situation changé na fi mu mais fi mu nii dafa dem ba am en ci fam fam famille ci famem famille yaay jeeg famille papa jeeg am inti ñëpp firmi nii nag neen loolu lépp da koo bëgg a dakkal pour jublu ci boppam hmm. parce que ñii muy toppatoo nii maanaam ñii muy toppatoo nii su seen pexe sotti woon te heure bi faat na mu ne da koo bëgg a dakkal da koo bëgg a dakkal waru ko woon commencé sax waaw mayel expert bi mayel expert bi. expert yi lan ba yii ban kay. <laughs> kay ci xalaatoo gaa yi rek. <laughs> expert jàmm ak salaam kii réew mi ku fi de expert la rek. <laughs> ay di ngay dégg ay bindikati livre yeeg. ñaar de dama la dañ leen di bàkkee ñaar de dama la koy wax nga xam ko. Mm-hmm. mooy àdduna ku fi sonn ci nit ñi. ah xaw ma ndax di fi yàggam doo fi yàgg de waaye doo dund lu neex. mooy mm-hmm. sonn ci nit ñi. Mm-hmm. dangay ngay sa bopp. te nit ñi ko ci téye fukki at séq ak moom lu baax benn at waxuma sax benn at benn fan nga juum. waxuma sax nga <laughs> teel ko lu bon waaye nga waroon a def lu baax fàtte koo def. fàtte nañ fukki at ya nga defoon ci lu baax lépp. ci famille yi lay commencé nag. du loolu. gis nga ab xaj boo ko dee yar te bëgguloo du fa toog. nit nag moo lay bañ nga ànd ak moom mu nekk ak moom. Mhm. nekk ak yow rek di la ree rek. waaye bis bu la jekkoo def luy fi xaj. c'est que c'est dëgg la c'est que Njaay gis nga genre nit yi. dëgg dafa métti de. ñi dund lii nii. ci mm. dëkk bi bari nañ lool. maa ngi lay ko wax démb nit a ngi jël paasu Màkka di jooy. dëgg la nit ñi yaakaar ne bànneex lay jooy fekk gàcce lay jooy parce que mérité wul paasu Màkka bi ki ka koy jox. Euh, ki la koy jox def nga ko lu ne ci àdduna su say pexe sotti woon du am paasu ma du dund bay am paasu màkk Ndiaye bay démb rek maa ngi ci waxtaan ak benn waay mu ni moom li ko maanaam li ko famem def maanaam juddu na dafa juddu rek fekk papaam ak yaayam ñuy ami doom mu ami rak mhm. papaam feebar mu faj ko nee na def na ci papaam ay million ba ni papaam jéggi euh, wàccib liggéey gi nga nee bañ toogee di miraas mhm. jour boobu lay doog a xam ni moom judduwul ci sëy kenn mhm. mus ko wax dara kenn musu ko annoncé maanaam jour boobu la koy doog a xam ñi mu ñi ñi frère mi moom ñëpp ñoo bokk ndey baay mais moom mooy taaw. moom moo tabax kër papa ji. waaw la moo tax nag ba ji. papa ji nag waxu ko mënu ko woon def ci biir euh, testament bi quand même. voilà non non non xam nga tey ndax am na lu mu miraas mu ne moo tabax kër gi. Ah, ah, moo mais mais pour mu naayesal ko pour mu pour mu euh, def ci xelam mu rafet rek mu mu daal di ko. ko def ci wàllu ci kii nii waa ji dafa am en. enu ah, seen waa seen famille mais bien sûr bi da ko choc la ko def daf ko def choc bu garaaw imagine nga dund ba am 40 ans sa bàyyi de nga def ci ay millions mhm. génne ko réew mi yóbbu ko faji ko indiwaat ko yàlla def la gën mhm. nga toog sa alal papa yëpp nga dajale ko def maanaam def yëfu taaw mhm. ba miraas jot ñu dajale la teg la ñun la yow mii bokkoo ci miraas mi te daanaka li ñuy miraas xaaj bi sax yow yaa ko defal sa yow ma toog leen ree rek waaye waaye waaye man du tee dinaa wax gis nga man Ndiaye. xëy na côté boobu xëy na c'est choc lu metti loo ma def mën naa la koo baal mais du ma jug ci di mën naa la baal moom. baal di la defal ay teraanga yooyu yëpp mais ñaari fan ñett yu ma def benn acte wala wax benn wax boo xam da ngay xam ni maa ngi lay fàttali parce que gis nga nit ñi boo leen bàyyee ak seen euh, euh, kon du ñu changé. il faut ngay fàttali nit ñi ne àdduna amul solo parce que dañuy dañ lay euh, considérer ci li nga am ak li nga mën nit ñi considéré tuñu nit. ah c'est que ñun matériel lañ gën a fonk. yàlla daf ñu bindee loo xam ne luñ dugg mën nañ caa génn. matériel lañ gën a fonk. c'est que dañ lay gaañ ba pare di la raay tey boo fàttaliku euh, temps bi ngay dem Colobane di yor benn daal di ko jaay ak yooyu am na ay ay ay bët am na ay fee yu ñu la doon def yoo xam ne tey jii euh, nga bàyyi loolu mu sedd ngay dund leneen lu bees mais faaw ngay fàttali nit ñi ne ba may doon dem <laughs> Colobane ni la daan demee. <laughs> ah mais donc. <laughs> Ah, ñàkk da ciy bokk nag. loolu aussi loolu aussi Abba da lay dooli doole. mais billaay walaay. genre mel noonu. Uh-huh. bu ñàkkoon ci sa dund uh-huh. xëy na tey doo mën a. loolu moo lay loolu moo lay loolu moo lay motiver. waaw bu waaj nee na ma moom moom moom mook tàntaam ñoo dëkkoon ak papaam mais tànt ji da ko doon tere dugg néegam. <laughs> daan ko tere toog ci kaw lalam. Mm-hmm. nee na bi mu demee bitim réew. liggéey ba ñëw di dem a ko ñëw un jour mu mu jógee ka xawma fan la demoon ñëw rek lal basang ci ëtt bi rek tëdd tante ji ne ko eggal ci biir ci kaw lal bi tëdd mën ko tànt ba nekkee xale danga ma daan tere lal. xoolal li lan moo après moo mun ni ma lan moo tax mu war maa wax ma dugg ci laalam bi ma daan tere bi ma nekkee changé situation yi changé situation yi changé ko mm-hmm. doole cere doole fonk ñu nit matériel lan fonk fonk di situation lan fonk non non dañ lay gaañ gaañ bu garaw ba pare dira raay Sénégal fonk ñu nit ay billaay boo demee Amérique boo xool américain ni ñuy dundantee seen biir nga xam ne ñi lu ñu am dañ ko mérité mm-hmm. danoo fonk doomu adama danoo fonk nit nga xam ne ñii lu am dañ ko mérité. mais nañuy muñalante rek. doy na waar nañuy muñalante rek. non may ma ñeex fële. oui ma waaw. ki mu ne. Ndiaye. Aba. Euh, ban plutôt. kii daal dañu mot seen Ndiaye gi de film nii moom jox naa la ko démb maa la koy wax. <laughs> dafa am Mamadou Mouhamed Ndiaye loolu ca rédaction ba. waaye fii Ndiaye la waa Ndiaye. ban man damay laaj auditeurs yi. dragon ba doon wax dragon ba maa nga fa ba léegi wala. nu tamit bëgg nga fee indiwaat ay wax. di damay laaj rek damaa gis nga waaw Ban yow euh, fi ñu toll nii boo ñu laajee wala nga laaj moom mii Ndiaye nga bëgg ko attaqué di ko laaj ndax dragon bi ñun ñu laajaat la. waaw woon nga fi histoire ci Chine eggali woo ko. waaw non non xeex bi xeex ba juboo nañ. woon nga fi benn booy boo xam ni booy bu neex loxo. booy bi booy bi sàcc ba. booy bi nu mu tuddati. libéré baara booy boobu ah, <laughs> baara. baara eggali woo ko waaw. mais yooyu yëpp nga indi keneen ka ñaari couple ba ba demoon nu mu tuddati. kii ñu jóge woon Londres doon tamante. déedéet ñoo ñoo ñibbi nañ moom seen affaire rek la. bàyyeeku woon fii seen maam xaalis xaw ma ko dóor. ah Selek Diarra Selek Diarra moom. <laughs> Euh, euh, Diarra dem na Mauritanie. neex na classe gi. Eh? non non ñibbisi nañu ba Diarra dem na Mauritanie Selek delloo na Maroc. bàyyante ah, nañ waaw bàyyi non non kenn mayewu leen nag xaalis bi feeñul ba léegi. booy nga fi indi woon te xam xam a papa ji tamit daa nekkoon xaw ma fee ci tey mu am yaay ji nekk ab chinoise te am benn booy bu ko doon bëgg baay ji ne ko dama la ko may booy bi jël ko yóbbu. yooyu yëpp ñoom ña ñoom ñaar ñoom ña ña ña ngi ci sëy ba léegi de. yaa ngi gis. nga tamit fee yëpp dafa neexoon bëggoon ko. <laughs> waaw jékki rek daal di koy doy na war de waaye kii de. jaay dragon xew fi. damay dragon ba moom laa bëgg a xam ndax génn wala génn. ak beneen jaay bu naan nii. <laughs> jaay kii ci boutique lañ ko fekk. jël xaalisam bu bari boo xam ne moomu ko moom day liggéey rek diverse verser patron waaye benn jeeg xam nga fi mu nii ñi ñi dugg ci boutique yi di sàcc ay femmes yi jekk lañuy doon dugg mel ni kuy jënd waxaale ñëw jël sa saak yóbbu wala ñu jël sa xaalis yóbbu wala ñu jël dara yóbbu. Mhm. kii loolu lañ ko def déglu ko. de damaa waaru samedi ba léegi mosuma noo xam ne jigéen dana am taxawaay bi ak jigéen euh, dimension bi am man daal damaa toog ci sama boutique. ma compter xaalis maa ngi fii Liberté cinq damay jaay ay saak ak ay dàll léegi nag dama toog samedi ay 13 heures ma compter sama xaalis dajale ba mu nekk 400 000 francs yu moins trente 000 ndax di ta 30 000 bu manqué sax sama voisin bi laa dénkoon 30 000 ne ko sama livre bu ñëwee nga joxal ma ko ko. looloo manqué si 400 000 francs bi léegi nag fi ma toog ne conté ba pare ranger sama saak jël fas ko si benn sachet bu noir xaw am blanc. ma fas ko ba mu nekk takk bu ndaw ma dugal ko sama sakos teg ko sama suufu vitre tëjuma saag bi nag dama ko dugal noonu rek teg ko sama suufu vitre léegi na benn jigéen yow boo xoolee mu ngi jool am yaram ñuul teint noir bu rafet wang ni léegi na mu ngi teg benn greffage comme greffage yu Adiza di def yu fireeku yooyu noonu boo ko gisee mu ngi waax ba ñàkk tooy xep mu ñëw ne ma soxna sa man de yére bii laay laaj yére xale laay wut ma ne ko yére xale de am na ma sa mu ne moom am nga beneen couleur ma ne ko waa am naa sa beneen couleur mais li ma sa dese de bariwul ndax dama ko jaay ba ñaar rek laa ci dese fi may tijji vitre bi nekk man man maa ngi koy bàyyi xel ma tijji vitre yootu benn bu bleu bi ma koy xëccee rek maa ngi yàkkamte ndax jigéen ji maa ngi koy xool ba xam ndax dina fi jël dara wala du fi jël dara aw ma ci moom confiance ma xëccee rek yëpp daanu ma tudd tëjaat vitre bi ñëw ne ko bii laa mu ne ma bii de rafet na waaye damay dem won ko sama wax ko sama doom bu dee bëgg na ko dinaa fi ñëwaat ndax man soriwuma maa ngi dëkk ci quartier bi dinaa fi ñëwaat bi may wax teg tijjeegu ma wax daanalagu ma sama kàddu sax mu jël saag bi jël daw dem mu ngi ñaq tooy xep mu nekk jaam bu am yaram nii sol benn robe may luus. maa ngi naan ah ma yóob ni ma ne ah ndaw si de moom dem na ma ñëwaat toog fi ma toog nii rek sama patron woo ma ki may envoyé bagage par Paris mu woo ma ne ma xaalis bi fi nekk comme compte nga ko léegi livreur mu ngi ñëw dem yóbbul ko GP pour ñu mën ko fay marchandise bi ñuy indil. ma yóotu sama saag ne ma calcul nag xaalis kanamu nit ma jël détaillé balaa livreur bi di ñëw ma génnee deux cent mille cent cinquante yëpp mat seddale xaalis ba mu jeex. Euh, livreur bi xool sama saag gisuma dara ma wër wër wër tourné xool gauche xool droite fu ne ma xool sama xel dañ ne ndaw si li tax mu daw kon moo yóbbu sama xaalis ma seet ba sonn keroog mennum ndaw sos moo fi dugg. nii la yóbboo sama xaalis bi xaalis boo xam ne man ma ko damay liggéey rek toog ci boutique bi ñu may fay weer xaalis moomuma ko sama patron moo moom léegi na yóbbu na xaalis bi mais xaalis xaalis bu leew la yóbbu baaluma ko ko tey baaluma ko ko suba baaluma ko ko ginnaaw suba léegi nag xaalis boobu may naa ko fii ñetti fan tey la lundi mardi mercredi jeudi xaalis boobu fanaan si sama loxo na xam ne moom dinaa ko diggaale ak moom parce que xaalis man moom ma ko xaalis jàmbur la yóbbu lu mu gis nag man la lu mu gis muy ñuul muy xonq muy weex man la moom ma koom kan waaye xaalis bu ko delloosiwul dootu jëriñ boppam dootu jëriñ boppam ci kaw suuf bu ko neexee na lekk xaalis waaye àddina bi moom pare na ci ñetti fan rek laa ko may bul deew dana yàqu. xalaas. Ah, doo ko wax mu baal ko. dëkku laa dégg naa def dëkku na ko de. ban waaw bis bu ñu la sàccee dootoo yërëm sàcc. Ah? bis bu ñu la sàccee. Ah? dootoo yërëm sàcc. yaakaar lay tas de. mu ne ñaata fan la ko may. moom kay ñetti fan. fii ak sax ëpp na sax waay mbaa du bu yow kon association de kii nga. waaw xam nga nag dama lay wax benn nag baat nga xam ko ban ci sàcc. sàcc bu lay sàcc. Mhm. bu naree échec. Mhm. lu ne attan na la ko def. Hmm. Ah? bu naree échec. Ah. lu ne attan na la ko def. Mhm. te buy réussir li mu bëgg rek bu koy yóbbu sa àdduna mën na ca yàqu. xamul lan lañ la sàcc. moo violé reyam. ci. sooy violé la violé benn xale bu jigéen ñu xàmmee la nii. su lay xàmmee nga koy rey. man moom ku ma fekk sama doom nga koy violé mbaa lu takk ci man. man ma fekk ngay violé lu takk ci man. mbaa sama doom yow kenn loo tëj man la ñuy tëj. yow moom xam naa ni moom hmm. euh, kenn du la tëj. moom ngi la ñuy tëj effectivement. Ndiaye looloo tax gis nga cas bii. Uh-huh. ndaw si biir bi day metti maam jo yóbbu ko ci ab buxaaba. Hmm. buxaaba ba teq ko tequm biir. ëpp naa wax déglul. man damaa dem sama biir moo doon métti ma dem hôpital dem naa hôpital bu nekk seet ko fa mais. biir bi daal tanewul yàggoon na ma dal léegi ma expliqué ko sama benn maam sama maam bi ne ma am na sëriñ bu ma xam kooku moom am nañu ma fa daan yóbbu léegi mu ne ma nañ fa dem ma ne ko waaw parce que biir bi damaa sonaloon tam dafa yàggul torop ci man léegi mu dig ma bis mardi mu ne ma bu mardi ñu dem fa bi ñu xëyee ci mardi bi ñu dem ñu takkal ñu saret ñu dem mu ngi nekk ci wetu ndàngal ma Mérina Sarr moom la tudd man foofu xaw ma fa sax c'est la première fois ma dem fa ànd ak sama maam bi ma demee ñu niyoo dugg mu ne ñu toog leen xaar bi ñu toogee mu ne ñu jàll si deñ bi ñu ñëwee sama maam bi expliqué ko mu ne ko léegi dangay dem ci biti xaar ko sama maam bi toog ci biti ma expliqué ko bii bi ni may dikkee yépp mu ne ma léegi biir bi affaire de seytaane la dafa jaare ci sëy léegi bi mu ma waxee loolu ma ne ko xam ah, mu ne ma waax mu téye sama loxo bi mu téye sama loxo nag moom ci laa sentir ne foofu tàggalikoo naa sama sago am na lu ma def moom léegi bi mu defee noonu mu ne ma il faut ma defal ay sangat il faut ma defal la ay sangat mu woo sama maam bi wax ko ko ne ko kii dama koy defal ay sangat il ma defal ay sangat léegi dangay toog ci néeg bi xaar mi ñu mu sama maam bi toogee ci néegi xaar yi ñu dem ci wanag bi bi ñu demee ci wanag wi mu ne ma summeekul ma summeeku ba des sama sidib mu ne ma dangay dindi sidib bi ma dindi ko mu ne ma tëddal ma tëdd bi ma tëddee ci la egg sama kaw bi mu eggee sama kaw nag boobu noonu moom diggante boobu bépp xamatuma fan laa nekk mais bi mu eggee sama kaw rek ci laa sentir ne kii mi ngi sama kaw ma puus ko mënul jóg ma jóg mënuma yooxu mënuma def dara ma puus ko puus mu bës ma ma puus ko puus mu bës ma mënuma yooxu mënumaa def dara ci laay bër bëri noonu di def noonu di def noonu ba bay waaj a rocceeku ci lu jóg bi ma jógee mu ne ma dangay sangu ma ne ko duma sangu mu jàpp sama loxo ma bii fu ko génn bi ma génnee ci laa ko wax sama maam bi ci boobu maa ngi jooy sax xamatuma fan laa nekk parce que c'est la première fois ma dem fa te biir bi metti moo ma fa yóbbu woon biir bi metti moo ma fa yóbbu woon demuma fa woon ngir lu bon demuma fa woon ngir lenn biir bi metti moo ma fa yóbbu woon bi ma demee bi ma bi ma defee lu dama tàqali ko sama sago xamatuma fan laa nekk ma wax ko sama maam bi ma ko waxee sama maam bi mu ne ma nañ dem bi ñu ñëwee mu wax ko ko mu woo ko ci ruq bi mu ne lan la la lan la wax mu ne ko kii de nee na danga ko tëdde mu ne ko danga ko mas a xam ci man di commencé di weddi sama maam bi ne ko musuma ko xam ci yow mais kii lu ma wax dëgg la parce que kii dafa yor njabootam dafa yor ay doomam dafa yor jëkkëram te biir bi moo moo ko fi indi woon mu commencé di weddi bi muy weddi ci laa xëcc sama maam bi ne ko nañ dem léegi foofu maa ngi jooy jooy yu metti parce que doon na lu ma bett doon na lu ma betti trop trop trop metti ma trop trop trop sama maam bi woo sama njëkke pour mu wax ko sama jëkkër bi mu ko waxee sama jëkkër boobu moom mi ngi tuubaa ci la ci la sama jëkkër départ tubaab pour ñëw tase foofu ñu dem Bambey bi ñu demee Bambey ñu bindal. ci nit kuy nit kuy sëy. kon boroom jëkkër la. borom jëkkër la ak jëkkër ami doom. waaw. Hmm? ànd ak maamam. ànd ak maamam waaw. ci buxaaba bi. waaw. bi ñu duggee ba ci biir. waaw yow lan la maamam wax. lii la wax. man maa àndoon ak moom. xam nga ànd ak moom yóbbu ko. fekk sama sari ànd ak moom yóbbu naa fa nag ay nit ñu bi ñu demee mu ko seet ne ma may ma ma xool ay loxoom ma may ko mu xool ay loxoom waat nu ma ñëw mu ne ma léegi kii ab def-def la am moo ànd ak biir bu métti dañ ko ak sëriñ da koo laal dama koy faj bindal ko bindal ko garab yëpp jox ma ma téye mu ma léegi dama koy sangat bi mu moom dugg jox ma toog di ko xaar ci néeg bi dama ko xaar bu ñëw ma laaj ko lu ñu lay jox ma lu ngeen ma jox baax na ci lañ ko joxali ñu yor ma génn ba ci buntu kër ga xale bi daal di may wax ma affaire bi ma waa ji dama tëddi ma delluwaat ba ci moom wa expliqué ko muy miin ah man te sama mën naa faasoo ñu ñu gaañ sama fas wala ñu gaañ ma ànd ànd daal génn noonu la ko gën a génne affaire bi lu ma jógee ca soxla ndax dama fa yóbbu ay sax su ma dee sax yëpp te kenn ku ne sañ na la ci biir bi nekk noonu loolu la ci xam. dégg nga maire bi. ki mooy maamu xale bi. mooy maam bi yàgg na fa yóbbu ay nit. mu ne ni faji biir est-ce que waa ji yàggut a faji nii ay biir. léegi question la. maam ji moo fi yóbbu sët ba. moo fa yóbbu sët ba. na ngeen ne sët bi daa am jëkkër. daa am jëkkër. ana jëkkër wax. soxna si sama soxna la. biir bi moo ko doon daaneel. di ko daaneel mu dem hôpital ay yoon yoon mënta wér. après bi ma xamalee ne après mu tàggu ma bi ma tàggoo ma ba ko xam naa biir na ko mu ne ma talaata talaata la ma fa yóbbu après ma lijjanti fi xaalis dox ko bisu talaata la tax xëy dem ba ay dix heures jàpp mi di ay dix heures onze la ma la ma sama mag bu jigéen woow na ma yow de di nga ñëw tey ba waat ma ne ko lan moo xew mu ne sa soxna kat sëriñ bi nga ko yóbboon dafa dafa ànd ak moom da ko weele ma ne ko lan mu wax ma ko ma départ fii wut Touba wuti wuti Bambey bi ma àggee maa ngi fekk sama soxna maa ngi fekk mbay muy jooy maam ñu ànd la moom di jooy après ci laa ànd sama soxna taxaw ak moom defal ko ba mu xaw noppi boo sax man taxu ànduma sama sago waaye fexe naa ba ba ba ji ma ji ma wax ak moom laaj ko ndax li ñu wax li ñu wax am na wala amut te moom sama soxna lu mu wax man xam lu ma wax rek mosuma mosuma fen mu xamal ma ne carrément waa ji ànd naa moom boobu nag wax dëgg yàlla ànduma sama sago lu ne xalaat naa ko nu may def nu may def. waaye ci la mag ñi dikk a xamal ma ne ma léegi dañ dem hôpital ñu xool ko ba xam ndax dëgg la wala déet ndax lu wér la mën naa mën naa taxal ko sagoom rek waaw après ci lañ dem hôpital mbay ñu dem xool ko ñu ne ñu ñun duñ bind il faut ngeen dem Diourbel gynécologue bu Diourbel ñu jógee foofu dem Diourbel gynécologue bu Diourbel mu doo a ñëw xool ko daal di accord nga xam ne lu wér la après bi mu ko xoolee bindal nu médical bindal ko ay ordonnance luy téye mi ba du ba du jëlee ay dépression yooyu garab yoo xam ne day tax du jëlee am bu affaire yooyu. non man dama jënd ko léegi ma naan ko après ma jënd ko ma naan ko ñu jógee waat foofu ñëw Bambey bu ñëwee Bambey ci gendarmerie ñu yoon. waaye nag minti gu ma métti bi métti gu ma métti gu ma métti moo tax. gendarmerie Bambey bi ma fa demee. moom moo ñu jox ko convocation ñu yóbbu ko man ak sama mag bu góor. biñ koy boobu borom dëkk bi dañ ko yóbbu. chef de village bi après gendarmerie doo ko woo woo na ko léegi wuy si leen nan wuy si suba Ousmane Sarr nan wuy si suba ngeen xëyee suba boobu wuy si alxames ndax àll ba la ñuy pérante bi euh, convocation bi alxames ajuma ba samedi sàndarmay doo koo jëli waaw léegi moom jaarale nañ ko jurbel mi ngi jurbel mi ngi ci loxo yoon atteeguñu ko sax nii may waxee yow ko mi ngi ci loxo yoon biir na ma ne moom da xam naa des na ko rek mbir mi naqari gu ma naqari ak lu mu def sama soxna loo xamante bi biir na ma ne du gaaw a génn ci moom wala du ko du ko gaaw a taxal ko moom moo mën a xari moo tax Ousmane Sarr la tudd ñu dëkk Mérina Sarr. ban lii lëj na de. lëj na il paraît defee defeere nañ ko daal lañ wax ma nga tribunal bu Diourbel daal la jëkkër ji wax xale bu jigéen bi wax na maam ji ko fa yóbbu woon wax na jëkkër ji wax na. foofu dëj c'est que c'est que c'est que c'est que soxna yi c'est que fii Afrique la fii Sénégal la soxna yi mun ñoo bañ a dem ci ñaankat yi mais sooy dem nga xam nooy demee am na yoo xam ne su la ko am ñaankat waxee da nga war a arrière waaye dem ñaankat ba di la sànq am na ci ñoo xam ne dañ lay exiger ni la maa lay sànq yàlla góor ak sànq jigéen si c'est que ñii ñaan ñaanu xawma genre yi ñoo tax ñii mën a ñaan tey ñaan ñaan yu baax sax ñi dootu ñu leen wóoloot leen di yàqal xam nga góoru Sénégal dafa gaaw a découragé mm-hmm. c'est ça maanaam femme bi mm. maamam waru koon yóbbu ci sëriñ jëkkër ji toog di xaar mm-hmm. jëkkër jàng fa mu doon liggéey waaw d'accord peu importe mm-hmm. mais lay leer na bu ñu jëlee nit ak i noppam di jigéen ne la may nañ la ko lu ko dal ànd leen ko lu muy dugg na ko yëg looy dugg na ko yëg. mais Ndiaye sunu village yi. mais Ndiaye parfois dañuy dem. sa jabar su feebaree wax ne amoo confiance ci yooyu. waa d'accord mais xam nga sa goro moo sa maam sa njëkki loolu mooy am. waaw mais lii daf damaa bëgg mu yee ñu bëri. parce que fem bii bu àndoon ak jëkkëram dem. waa ji xelam du xalaat lool. bañ a xalaat yow ngay dem mais Ndiaye. déedéet mais bokkul doo dem kër docteur sa jabar dugg nga toog ci bunt bi. mais Ndiaye. déedéet bokkul bokkul. Ah, ah, ah, déedéet déedéet. mais différence la am. mais Ndiaye la rek. mais Ndiaye wax dara de. am na ci am na ci docteur yoo xam ne boo ne dama bëgg dugg dañ nan la duggal. Mhm. waaw waaw c'est différent ñaareel bi sopp mooy. waaw sa sax du la aaye moom. voilà xam nga ki yor cabinet am yor clinique am nekk euh, un professionnel di faj. Mhm. rombale na boppam yi. ak Mara buy ñaan nekk professionnel am di ñaan. waaw ah, rombale na boppam yi kii mais kii moom. waaw kii moom ak ak saay saay ko tax a ah, jóg. mais mais liñ ci mën a jànge mooy ji góor gu ñu ci may soxna. Ah. mu feebar tollu diggante. waaw fu muy fajoo ànd leen. waaw boo amul bu amul boo amul jot yow. Mhm. toogandoo leen. ah tey fi mu ne góor bu fi am jabar góor gi feebar jabar ji toog téye loxoom dañ naan noo ba muy man mhm. da koo jàppale woon. njaay da ngay mu seetaan ko njaay. Mm-hmm. dañ naan da koy contrôler njaay da ngay nopp sa soxna nopp. Mm. nga tëdd sa kaw lal benn dimanche wala samedi mu dem marché temps ba muy dem sax du du nekk gudd lool nga woo ko naan ko foo nekk du xam ni da nga du jàpp ni da nga koo namm <laughs> danaan la waaye yow lan la. wóolootu <laughs> ma ah te yow te yow dangay def affaire de sëyu xam nga ku ko. namm yooyu waa waa waa foo nekk bee bul yàgg marché waaye ñëwaatal ayur ah, sa a bëri nag yow. Ah, léegi <laughs> nag ah, day la woo boo xam ne maa ngi woo ma appel vidéo. dañ la ciy tegal ku saay saay day fiir. waaw <laughs> loolu la ci dëgg. la dëgg <laughs> la eh, da nga ciy bëgg sëy sëy bu rafet bëgg ci wan ni da ngaa mën a sëy wane ni yow jantal meen nga mais li la ciy fekk après li la ciy fekk après mooy loolu. nga xam nga bu sëriñ ba yegg fii moom dem di faju ji. di mm-hmm. dem ci sëriñ. Mm-hmm. na góor yi di gunge seen. mooy dëgg la parce que fekkoon waajee feebar. Mm-hmm. li ma leer ba leer mooy soxna waratu ko toog di seetaan ne ko demal. dëgg la gis nga Ndiaye. maam jiit mhm. na xam ne jamono wéy na moom jamono jamu tombanteeloon. Mhm. mooy jamono yi nit feebar nga yóbbu ko ci maaman mu ñaanal ko. lii de hôpital nag xaj. waaye yow ana yow ana nit di ko yóbbu yow mhm. yow yow yow waa jamono na laa yow ba nga ne ŋodd mu def li muy def loolu yóbbu waate gis nga Ndiaye jigéen ñi suñu waxee rek te yàlla tax ñi ci dund lu mel ni bari nañ ah. moo xam waa ji réussir na ko war a réussir ñu ko. ak bari dugg ci àll bi wala dugg fii ci dëkk bi. àll bi sori na fii ci dëkk bi dafa lii dafay bari ci dëkk bi. bu ma feebar hôpital laay xam naa dinañ ci am yeneen i cas. man de sama bopp doon metti nii Ndiaye. <laughs> Ndiaye sama bopp doon metti. Ah. ñu yóbbu moo ci benn paa bu koy moccat di ñaan. Mm-hmm. ma dem toog di xaar paa bi ñi farak ñëpp dañoo bari waa ji nekk ak paa bi moo ñëw ci biti nañu. koo gi de ñetti fan a ngi nii. Mhm. boobu bi métti kuy bëgg a rey ma am ki mu munuma. mooy ki leen war a mool <laughs> mu ne ñetti fan a ngi góor gi fi mu tëdd la tëdd boobu bi méttee bëgg rek ñetti fan man kii moo ñu war a moo feebaree hôpital laaj. waaw mais mais benn femme wootewul fii Ndiaye. <laughs> Mhm. nii nii sama jëkkër day day day faj ay ay garabu ngóora. sama jëkkër day faj pour ku góor gu tele mhm. jabar ji ki woote fii ñaareel la. mu ni moom ci boppa mi ngi télé di wax moo ñu moo gën a télé ci réew mi. Ah, Jamra moo wax lool. amee loolu mën naa nekk. yow ngay faj télé te mënoo foofu. mën naa nekk nu mu ne a ne. amee wax naa bala ngaa naam ne fa yow nee woo fa naan. man temps ba may ne Colobane. waaw fekk naa kuy jaay loo xam ni bayre la pour bayre. waaw loo ko wis mu jar. waaw di ku ko soqi ma naan waaye waaye. déet déet ay ku may soqi waaye. maa ko <laughs> doo dajji benn nga wis ko ci sa njaay. <laughs> présidence de la république rue président ci côté rond-point Colobane ak Sandaga rue Jean Jaurès présidence de la république yaa ci palais de la république muy résidence du président de la république nga mooy demeure historique situé dans le quartier de Dakar plateau capitale du Sénégal construit en résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF depuis l'indépendance nag du Sénégal ka nga moo fa njëkk a jaar di Léopold Sédar